chers amis internet bu euh, Lune TV ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen bëggee fa waaye mën a nekk fekk na fa di la ziyaare bu baax a euh, wax dëgg yàlla ba léegi ñu ànd ak yéen ci seen émission yaatal euh, tey nag ñu ñëw ba diwaanu Tivaouane Peulh seet si bi koo xam ne kenn dootu ko présenté wala mën nañu ko présenté sax ndax jeune la di jeune boo xam ne nekk ci milieu showbiz bi di ci bay waaram dëkk fii ci Tivaouane Peulh ñu koy wax Milka Eh, Lahma Séri de Tiwan Peulh eh, fi moom lañ seet si tey fas yéene seq ak moom waxtaan dañ koy nuyu bàyyi koog mu nuyu mbokk internet bu TV bu ko defee ñu dugg ci waxtaan bi eh, DJ Milka maa ngi lay nuyu bu baax baax di la ziyaara bàyyi nga internet bu TV bu ko defee ñu dugg ci waxtaan bi. wa maa ngi lay fay maa ngi lay fay frère Mathiara ah di la wax ni que dalal ak jàmm ah di nuyu ñi nga xam ne ñi ngi ñuy seetaan ñëpp à travers partout au Sénégal ah di nuyu waa Tivaouane Peulh ah Kër ak képp koo xam ne tey mi ngi bëgge Milka ah à travers les réseaux sociaux ah ñi nga xam ne ñi ngi bëgge Milka foofu noonu ah Facebook YouTube Instagram WhatsApp ah maa ngi leen di bëgge lu baree bëree bëree bëri waaw di leen masawu tamit di nuyu sama gars yi ñoom Daniel ah ñoom Xaadim ak euh, sama sama sama gars yi may déglu ñëpp ko ok euh, jërëjëf ci nuyoo yooyu noonu bu ñu doon laaj rek suñu première question la ñuy commencé bu ñu doon laaj rek kan mooy euh, Milka fu mu dëkk ak fu mu fu ak lu ko ci seen musical bi lan la ñuy wax. waa Milka Milka benn booy la ah benn booy boo xam ne ah bëgg musique depuis temps booy ah, mu nekkoon yàgg yàgg ko topp ah yàgg dem ci ay Simba Gaynde ah di way ay mbapat ah, ay ngénte euh, ay mariage ah, ko lool xam nga mais mais amul woon fit quoi amul woon fit au fond pour pour. pour pour pour pour wane li nga xam ne moo nekk ci moom xam nga ba moment boobu ñi gën a nekk booy ah doon jàng ah nekkoon ci ay yu bëree bëree bëri te xam nga nga nekk ndaw di suivre benn affaire ah parents yi duñ la ci bàyyi quoi peut-être dañuy jàpp ne musique xam nga follow wala peut-être boo ci nekkee di ko suivre xam nga mm-hmm. leneen dañ lay jàppe quoi mu nekkoon ci ñun ñu yàgg woy mais euh, defuñu woon ay affaire quoi pour mën a wane suñu bopp dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg carrément loolu lool loolu la woon quoi. mais mais mais mais mais lan lan lan lan moo ko dugal ci musical bi dafa judd fekk ay baayam di woy wala yaayam di woy wala euh, dafa yëg ne am na talent bu nekk ci moom rek mu jàpp ne tey jii doole bu ko yàlla may war na ko mën a génne. waaw carrément carrément musique musique musique mën naa ne sama sama côté famille jëlewu ma ko ci kenn jëlewu ma ko ci kenn juste nag xam nga doon naa nekk gàlle ah di di woyandoog mère bi des fois mère bi di woy ma koy ma koy ma koy kii nii ma koy ma koy aw ak genre boobu noonu ah des fois may génn ci mbedd bi di woy sama xarit yi. ah di apprécier naa no oh, booy da nga mën a lii affaire yooyu di ma motiver affaire yooyu noonu xam nga des tamit ma génn dem mariage wala yenn affaire xam nga sama gars yokk ma fit ma booy dugal nga woy genre boobu loolu moo ci dugal quoi mu nekk loo xam ne tamit dama ko yàgg a bëgg tamit comme li may expliqué a ah. a sant yàlla mooy loolu noonu xam nga je pas gongo quoi peut xam nga li bëgg dëgg amaguñ ko wala li ñuy yàlla dëgg amaguñ ko mais sant yàlla ñi ah gars yi gars yi ñu nga apprécié et tout quoi mooy loolu. ok tubarkalla ci ci ci leeral yooyu ba léegi nii foofu la ñuy des ndax euh, gis nañ euh, tout récemment gi def nga benn single. Mm. Ah, xam naa single bi dinañ ci ñëw sax ndax euh, bu ñu doon laaj tey carrière musicale bi ñaata at nga ci defagum. Euh, mën naa ne mën naa ne mën un an parce que fin laa ci dugg waaw fin tey ñu ci 2021 waaw mën an waaw ba <laughs> naa ne un an laa ci def quoi bi ma ci duggee peut-être yàgg naa ko bëgg nag ah, doon def di defantu affaire yooyu mais bi ma commencé carrière bi dëgg dëgg dëgg fin 2020 la quoi. fin 2020 tubaarkàlla ndax euh, gis nañu nga génne single euh, lan lan nga defagum ñaata single nga génne gum wala génne nga album wala actuellement nii loo jàppagum yow def ci defaguñu album mais li fi nekk mën naa ne ëpp na album quoi. son yi ñi ngi bind ah ñi ngi denc ñi ngi def ay affaire peut-être dafa am benn équipe boo xam ne mu ngi suñu ginnaaw lu jot pour ñu def ko rek dinañ ko def mais li fi nekk ëpp na album xam nga son yaa ngi fi quoi son yaa ngi fi. mooy loolu noonu waaw ñaari son laa jot a génne benn son maa ngi ko génne temps yi passé même pas cinq mois je pense affaire yooyu benn son love bu wax baal boobu laa mujjee génn après bi euh, bi moo ca topp quoi aya bi mbam bi ok euh, mooy mooy bu nga tout récemment mooy bu nga mujjee def clip euh, xam naa dinañ ci ñëw sax ndax gis nañ mais dañaa gis léegi jeune jeune jeune sénégalais yi ñëpp ñëpp ñëpp songu doom musique bi tey jii yow boo ñu doon jàngatal da ngaa gis ne bëgg buzz la wala bëgg xaalis wala ndax gis nañ ñëpp léegi tey jii nii jeunesse bi yëpp ñoo ngi bëgg def musique ne jàpp nañu ne xaalis bi yëpp ci musique bi la nekk est ce que tey jii da ngaa jàpp ne amour lañ koy demee wala bëgg-bëgg wala wala wala wala wala tey ji da ngaa jàpp ne tey ji xaalis moo tax ñu koy def wala bëgg-bëgg waaw ñenn ñi ah ñenn ñi ñenn ñi ñenn ñi ah ñenn mën naa ne mën naa ne ah, bëgg-bëgg moo leen ci dugal quoi waaw ñenn ñi mën naa ne bëgg-bëgg moo ci dugal xam nga ma suis mal placé pour wax ci quoi ñi nga xam ne ah ñi nga xam ne samay moroom lañ wala peut-être a mag wala peut ñi nga xam ne maa leen mag samay rak affaire yooyu noonu pour wax ci ñi ah ak ak ak li dugal ak li la kii parce que aar bi li ñuy wax rek aar bi dafa yaatu ah, kenn moomu ko ku nekk da ngay bay sa waar rek waaw ah, te musique question de yëg-yëg la mooy loolu au fur et xam nga booy dañuy gën a yi di gën a avancer et tout affaire yi te booy am talent yi ñoo fi am na ay booy am talent ah, li nga xam ne moo nekk ci man am na ay booy yoo xam gis naa ko ci ñoom waaw ñi ngi ñi ngi génn ñi ngi defar affaire nice mais mais mais mais est-ce que ndax gis nañ booy bëri nañ ñu si am talent mais gars yi duñ leen nangoo may loxo euh, tey jii nii sax war nañaa toll foo xam ne képp koo gis nga am talent ndax fii ku fi jàll dañ laa may loxo euh, ngay jouer première partie après boo jouer première partie nañu tamit laa xam bu ko defee euh, nga nga nga ñoom ñëw jouer deuxième partie le président de public bi da la xam di hmm. am ci yow amul boo ëllëgee tey jii boo génnee ñëpp mën laa xam waaye da nga gis booy boo xam day nekk ci benn koñ am talent mais day day mbopat day sonn day day talent bi day ne ci moom bind yi yëpp ne ci moom mais du am ku a teg loxo te xam nañu seen musical bi ne nii ku amul ku amul brandon pour nga accès ji dëgg dëgg dëgg day jafe tey jii bu doon am looy conseil nga xam tey ñoo nekk ci kaw loolu wax waaw xam nga xam nga affaire yi moom ah, dafa laaj ngay génn quoi di gëstu ci ñi nga xam ne peut-être ñoo la mag wala ñi nga xam ne tey ñoo la jiitu ci affaire bi ah nga am benn staff bu baax boo xamante ni nekkul yow yaa defal sa boo yégee ne li am na am lu nekk si yow quoi nekkatul yow yaa defal sa bopp lépp wala yenn yaa koy lijjanti sa xam nga boo yégee ne peut-être am na benn affaire bu nekk si yow man poog li ma li ma xalaat quoi li ma xalaat a yoon da ngay génn ah di jéem a jouer bu fekkee ne bëgg-bëgg moo la ci dugal quoi di def tout di jouer ci yenn spectacle yu mag yi parce que affaire yi moom li ñuy wax rek euh, boo boo bëggee quoi boo bëggee jox ko li mu laaj dëgg-dëgg yàlla la ciy jàppale ah, di génn di dem ci yenn spectacle yi bu laajee nga fay sa xaalis sax pour mën a dugg jouer nga def tu pour mën a dugg jouer parce que ñun bi ñuy doog a ci loolu lañ débuté bu ñu demee xew wala mbapat wala lii nii peut-être ñi ngi nekk ay boy ndaw xam nga ñi ngi nekk ay booy ndaw mais dañ daan dañ daan foncé quoi di def tout pour dugg ci biir way même bu fekkee benn morceau lañ wala dara sax ñu bàyyi ko fa jàll affaire xam ñu moy lol non ba légui sax bàyyiwuñu ko parce que visibilité lañuy wër visibilité lañuy wut du xaliss du dara pour le moment affaire yooyu visibilité lañuy wër ah té té sante yalla ñi koy am dang dang nak mais liñ bëgg dëg dëg dëg amaguñu ko moy lol waaw di leen wax ne que xam nga affaire yi euh tay ci lépp loo mënti nekk nga am talent ah nga am ci bëgg-bëgg ak lu mëna doon ah nga ko ak liggéey wala ngay jang wala nga nekk sa affaire boobu baña baña bañ a affaire bi kessé quoi art bi kessé nga nga nga ko ak ben affaire diko def yaa nga ne bu boobaa xam nga après après yàlla mën na la jàppale quoi yàlla mën na la jàpp parce que affaire yi tey dafa metti dañ koy wax dafa metti des fois nga bëgg a am foo dem ah da physiquement dafa am noo war a mel ah pour waaw waaw waaw pour gars mën recevoir affaire yoonu loolu boo jóobul wala nga am benn encadrement bu baax doo ko mën a def waaw des fois tamit nga bëgg a def yenn son ah, benn jàppale sa ginnaaw wala ñu nekk sa ginnaaw affaire yoo boo amul say propre kii nii tey loolu doo dem foog nga job a nekk si benn affaire nga xam ne booy booy booy dañuy joob de booy yaa fi te booy am talent yi mooy loolu noonu dañuy job yaa ngi comprendre te ku yàlla jàppale moo fi nekk kon lépp loo mënti nekk loo ko bëgg-bëgg boole koog job ah mooy loolu noonu ce qui fait après mooy loolu heure musique bu jotee nga musique heure heure jàng bu jotee nga jàng heure liggéey bu jotee nga liggéey yaa nga gën a xam boole koog nag di génn di gëstu ah ñi nga xam ne ñoo la jiitu nga leen di laaj ah di topp seen ginnaw mooy loolu yàlla mën na la jàppale ba léegi ñoo ngi ànd ak Milka euh, l'enfant yow l'enfant série de Tivaouane moom lañ fas ne ba léegi moom lañ seqe waxtaan euh, bu ko defee rek xam naa ne dañuy des ci ci ci foofu ba léegi ndax euh, gis nañ ne fi mu ne nii actuellement booy bëri dañuy dugg ci seen musicale bi te ñi si ëpp mooy li ma ko léegi bës dañ ciy wut après def ci benn scandale boo xam ne dañ lay xeeb maanaam dañ la xeeb xeeblu say waajur xeeblu ci ñi nga xam ne tey dinaa bëgg te gis nañ seen médical boo ci duggee du yàgg da tout récemment yaa gën a xam xale jigéen topp la <laughs> gars yi ci ëpp nañ yi boo da nga gàtt xel ne loolu rek mooy yëf yi def ci loo xam ne tey ji ëllëgee sa yaay dana wala tey doo mën a génn tey boo mën lay conseil jeunesse bi ngir nga xam ne tey bu la musique taxee jóg nga musique te way ci deng nga xam ne da nga mën a jëriñ boo mën lay wax ak booy tey looy wax waaw xam nga xam nga xam nga aar aar aar mën naa ne dafa yaatu ko ah dafa yaatu te boo ci duggee lu ne moo ngi ci waaw boo ci duggee moom lu nekk moo ci lu nekk mën na la ci fekk mais nag boo bu fekkee ne peut-être pare pour carrière da pare dans tous les plans da pare ci côté yëpp yaa ngi comprendre heure bind bu jotee nga bind heure répété nga répété waaw def li nga war def quoi bu fekkee ne peut-être da nga bu fekkee nag da ci bëgg dugg pour buzz wala yenn affaire di la kii loolu moom <laughs> yaa gën a xam mooy loolu noonu mais bu fekkee ne peut-être da nga bëgg wala bëgg da a def musique moom foo dem wala ci loo mënti nekk dafa fulaak fayda def li nga war a def wane ginnaaw dem nekk say affaire ñaan yàlla ah ànd ak sa staff ak sa encadrement mooy loolu noon yàlla jàppale la quoi ok mais ndax yaa ngi yaa ngi yaa ngi jéem a wut link ak collaboration ndax moom la ko waxee léegi musique bi euh, certes euh, képp ku ci àgg fenn fii dañ laa jàppale ndax gis nañ fi ay label yu bare tey tey jii nii ji est-ce que yaa ngi jéem am ay collaboration wala yaa ngi jéem am ay link yoo xam ne yu lay jéem a accès foofu ndax euh, tey jii nii label yi ñoom ay seen xaalis lañu yor bu ñu gisee jeune talent boo xam ne euh, tey ji dañuy kii ku ko jàppale mu dem dañ ci nangoo investir dañuy nangoo jël say en charge ci lépp tey ji nii est ce que yaa ngi jéem def ay pexe pour mën a acté ci yooyu noonu ndax certes que dana jafe mais est ce que yaa ngi ciy bàyyi xel wala yaa ngi ciy def jéego ndax euh, tey jii nii euh, pour mën a ak foofu noonu waaw waaw waaw waaw waaw waaw mooy li ma la que sànq rek ah, ñi ngi def ñi ngi ñi ñi ngi def ah, mu ngi nice te ñi ngi am pas mal de connaissance quoi ci gars yi ñi ngi génn récemment bi ñu mujjee génn noonu aya bi bam bi ñi ngi ñu ngi koy joué fu nek fuñ ko présenter gaay dinañ nangu ba d'ailleurs barki dem rek euh, soirée bi mo mujjé jé amna benn label bo xamné peut être ñëw nañ ci man waaw waaw may ngi joué soirée fépp yaa ma gëna xam moy lool non fuñ mujjé jé non euh, amna benn label bu ñu ñëw contacté ñu pour jéba job ak ñun ay affaire mais nak xam nga mënuma mënuma teub rek né waaw quoi wala ma wala ma nekk ak ñom parce que tay amna ño xamné ñi ngi ci ginnaw dañu dama am benn staff bo xamné ñi ngi ci ginnaw Milka ya ngi comprendre dañ nan ma defal ma def bàyyil ma baye yaa ngi comprendre benn staff boo xam ne ci ginnaaw mi ka defal ma def bàyyil ma bàyyi affaire yoon en plus am na benn label boo xam ne maa ñoom muy waa Gap production clip ba ma mujjee génne noonu ñoom ñoo ko liggéeyal ah ñoom laa ci àndal ci liggéey bi ba mu egsi fii nii yaa ngi comprendre nag Milka ibil na ay portam xam nga pour ñëpp quoi pour ñëpp affaire yoo lépp lu ñu a def rek bu ñu gisee ne lii bu ñu ko defee dinañ su ma déggee dafa mel ni yow am ne la encadré waaw waaw carrément am nañ am nañ am nañ benn base bu solide bu nekk suñ ginnaaw boo xam dañuy def loo affaire yu bëri ñu ciy dugal heure dem tey fii la dañuy dem fii nii suba fee la dañuy dem fee ne tey fii dañoo war a toog dañuy toog affaire yooyu noonu eh, mënuñu eh, demal suñu bopp maanaam mel ne ndax daa am ñoo xam da ngeen jox sa bopp bàyyi leen seen bopp carrément carrément est-ce que tey nañ benn ambition bi wala euh, vision boo xam ne tey jii nii boo ci tegoo ci li nga teg war ngaa mën a atteindre li nga bëgg waaw waaw waaw am yaakaar ci ñoom am yaakaar ci ñoom parce que tey bi ma commencé mën naa ne un an un an bu ma tee un an ci lay yëpp mais tamit maa ngi maa ngi ngi gis sam bopp xam nga exemple bi du ma ne du ma ne waaw comme li ma waxoon sànq rek du ma ne waaw dëgg dëgg li ñu bëgg dëgg am nañ ko mais tamit peut ay ndaw lañ ah, ay ndaw lañ yoo xam ne euh, nuñ ko mën a waxee sax ay ndaw lañ yoo xam ne peut-être am na ñoo xam ne ñoom ñooñu mag jiriñu ci musique te li nga xam ne am nañ ko tey ñoom amuñu ko yaa ngi comprendre ñi ngi dem foo xam ne ñi am na ñoo xam ne ñoom ñooñu mag gën ñu jiituñu ci musique te fi ñuy dem fa kon loolu noonu sant yàlla gars yi xam nga maa maa leen di béggee daal maa leen di béggee te xam ne mooy lool noonu liggéey bi commencé gul sax nag commencé gul te ñu ngi euh, vraiment vraiment mooy loolu noonu teg nañ ci ma teg nañ ma ci ay conditions yoo xam ne gëm naa ne li ma bëgg dëgg-dëgg incha allah mooy loolu noonu king bi ñuy woté dinañ ko dinañ ko dinañ ko kiyé quoi tubarkàlla mbokki internet yi xam xamna dañuy dem ci diwanu diwaanu way Ousmane Samb ñong koy bëggee bu baax baax mom fa la nek mo ngi bay xel bu baax baax le premier janvier sax la wara def anniversaire ma ngi ko koy souhaiter bu baax baax par anticipation diko ko bëgg bu baax baax Ousmane Samb di la ñaanal guddu fan ak wër ak muccu lepp li nga bëgg yaa xam yaa yàlla defal lako sama munis bobu nga xamna ne lal yi baax yi koy defar armoire yi baax yi moo koy defar sha allah bu ko defee xamna nak nag moo ko bëggal mayal mako ben son ci ci ci ci ci ci kanam Ousmane ma ngi lay bëgg bu baax baax xamna léegi foofu la ñuy des ndax euh, euh, comme ni nga ko waxee jeune nga mm. mais yaa ngi yaa ngi ci musique bi mm. te euh, soo bi yombul ay obstacle lañ ci teg est-ce que yaa yu ci nekk ndax tey jii nii boo amul dëgërluwaay dëgg dëgg dëgg dëgg mën nga am obstacle yoo xam ne tey jii nii da mën ngaa ba est yaa ngi solal obstacle yi nekk sa kanam waaw carrément carrément ñoo ngi liggéey ah, ñoo ngi liggéey ñu ngi sóoraale lépp loo xam ne peut-être mi ngi suñu kanam ah tout ce qui est musique ñu ngi koy sóoraale parce que peut-être tey ay ndaw lañ mais am na am na am na ay gars yoo xam ne wala peut-être ay suñu ay rakk wala suñu ay mag ñoo xamante ni ah ñi ngi xool ci ñun ah ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi kii ci ñun quoi yaa ngi comprendre ñi ngi ànd ak ay gars yoo xam ne tamit xam nga ñi ngi ñi ngi am pas mal de connaissance yoo xam ne tey ñi ngi woo fu nekk ah ñuy dem di jouer affaire yoo noonu lépp lépp loo xam ne ñu ngi koy xaar on est prêt quoi on est prêt mën naa ne <laughs> pare nañ quoi ci affaire yëpp carrément ok euh, ndax euh, comme comme ni nga ko waxee maanaam ndax euh, gis nga seen musical bi képp ku ci dugg comme ni nga ko waxee booy léegi dañu am affaire de fashion maanaam ci ci ci ci ci solin ci ci ci lépp rek ndax bëri na ñoo xam ne tey jii sol yoo xam ne. xëy na sax bañ koy sol ci ci affaire de artiste rek la mais euh, nit ñi duñ ko gisee noonu tey jii yow mbaa am nga ñu lay xelal ci wàllum sañse wala genre yu mel noonu ndax donte euh, jeune nga mais est ce que yaa ngi bàyyi xelal war ngaa mën a sol sol boo xam ne bu ëllëgee ndax danga koy jaa am na ñoo xam ne suñu aada ak suñu suñu cosaan demewut noonu yaa ngi bàyyi xel war ngaa mën a sol loo xam ne ñu ne doomi jullit nga waroo def lii waroo def lii waroo que yaa ngi koy bàyyi xel waaw xam nga affaire yi moom man naa ne ku nekk fi ngay gisee wala ku nekk fi ngay xalaatee yaa ngi comprendre ku nekk ak fi ngay gisee ku nekk ak fi ngay xalaatee des fois yow nga def benn affaire boo xam ne doo ci bàyyi xel wala peut-être naan lii non lii du dara xam nga dama war a jouer dama war def lii def bam nice parce que art la ñu wax la gis dina xam ne kii artiste la wala peut am na lu nekk ci moom xam nga mënoo sol xam nga du n'importe quoi di dem ci yenn milieu wala yenn affaires yi waaw foog nga am noo mel quoi pour am benn visibilité wala pour pour kii li nga bëgg dëgg yaa ngi comprendre moo tax moo tax loolu noonu nice sama gars yi ma ciy xelal ah, ah, am na ñoo xam ne sama gars yi ñu may jàpp te fépp fu may dem dañ may woo kaay solo sama gars yi maam xaadim bu Kër may dem daf may woo ne kaay nga jël lii nga def li ñoom kilisop bu Kër Massar sama waaye affaire fépp may dem daf may woo ne ma kaay nga jàpp jàpp si affaire yi affaire yi papa papa tamit daf may woo papa sob daf may woo xam nga di jàpp samay bagage yu naa maa ngi leen di lu bëree bëree euh, nañ la euh, ci ci Euh, si say wax nga ne da ngay yaa ngi tëgg ay soirée euh, kon suñ la man a mel na actuellement nii fii nga nekk Tivaouane Peulh wala ci ci ci ci euh, gox bi fi ba Tivaouane ndax yaa ngi def ay ay ay comme tey ay soirée wala ay genre jàkkaarloo genre yooyu yëpp da koy tëgg pour nit ñi mën laa gën a xam wala da nga soirée rek ngay tëgg. non soirée mën naa ne sax tëggaguñ soirée boo xam ne peut-être ñun ñoo ko defal suñu bopp xam nga peut-être par invitation la ñuy dem. mooy loolu noonu mariage tamit xam nga ñi ngi joué ay ak lu nekk mais peut-être par invitation lañ doon dañuy invité ñu dem way ah, comme li ma la wax sànq visibilité la ñuy wër visibilité la ñuy wër pour xam ñu parce que tey mën naa ne Milka tey ah aya bi moom bi moo nañ ko dindi bëgg ko dindi xam nga di di di jàkkaarloog média ah, di jàkkaarloog gars yi di présenter suñu son def wane tamit suñu tuus bi nga xam ne peut-être fi lañ mëne affaire yooyu ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi koy def quoi tubarkàlla léegi xam naa dañuy ñëw sax ci ci ci clip boobu nga xam ci album bi clip bi euh, tout récemment maanaam nan la la dikkee toog rek euh, bind ko wala daa am ñu wala tey jii da nga la ko jox na la wéyal euh, pour clip bi nu mu la dikkee son bi si boobu ni nga man maay bindal sama bopp sama son yi ma dóor yëpp ah li fi nekk ak li nga xam ne peut être génne nañ ko pare lépp man maa koy jobal sama bopp quoi man maa koy jobal sama bopp comme li ma la wax sànq xam nga musique moom yëg-yëg la quoi yëg-yëg la te dangay ngay jël ayaam bi ma man mën naa ne ni ma dikkee li nga xam ne peut-être. moom la fi suñu maam yi bàyyi woon wala peut-être suñu ay mag suñu ay papa ci loolu ngay jël ah boole ko li nekk tey pour mu mën a doon dara quoi. Mm-hmm. ci noonu la ñu dikkee te man ah, sama référence wala peut-être naa def li nga xam ne. Mm-hmm. def na ko ci musique. Mm-hmm. Youssou Ndour foog nga déglu ko bu baax a baax a baax pour mën a def li nga xam ne bëgg naa ko def. sama maam xaar mbay ma jaaga tamit. dama koy déglu lu bëree bëree bëree bari mën naa ne affaire bi ci loolu la ma dikkee quoi damay toog di déglu xam nga di jàng ah di boole li nga xam ne tous bi nga xam ne peut-être mu ngi ci man mu boole ko li nga xam ne jëlee naa ko fële boole ko pour mën a def dara quoi tubarkala tubarkala bu ñu defe naa ñu ngi la dégg ngeen ne Youssou mooy euh, sa sa sa ah, euh, tey moom lañ la bëggoon laaj sax tey ji ndax seen musical bi gis nga ko tey boo soo déggee suñu papa Youssou Ndour moom nga fi dégg wala euh, suñu suñu suñu frère Wally Seck wala Sidi Diop genre gisee seen musical bi concurrence bi tey nga dégg fii ñu ne Sidi Diop ak Wally Seck ñooy tëggandoo suba nga dégg fii ñu ne Pape Diouf wala ñooy tëggandoo suba nga dégg fii ñu ne Youssou Ndour Youssou Ndour ak Wally Seck ñooy tëggandoo nan nga gisee tey jii euh, seen musical bi ak concurrence bi nekk nekk Sidi tey bu ñu koy di tudd Wally peut-être dafa am lu mu wane moo di tudd Wally bu ko wanewul di tudd Wally Wally tamit peut-être même chose papa yu kooku nga xam ne c'est le king mooy mooy buur bi instant bii nii peut am na lu wane tamit moo tax ñu leen ñu leen di tudd quoi te aar tamit boog loolu ànd xam nga ay génération la peut-être instant bii ñoom ñoo fi nekk ñoom lañ fi gën a ràññee affaire ñëw a euh, ba léegi ñoo ngi ànd Milka euh, xam naa ne euh, dañuy ñëw ba léegi de si clip maanaam tey jii ni maanaam visi visibilité bi nga ci am tey ji est jàppoon nga war na maanaam gëmoon nga ne tey ji naa la ci fekk ndax euh, gis nañ ko tout récemment gis nañ ñëpp a ngi koy commentaire yi yëpp mu ngi ciy daw mm. jàpp nga ne tey ji nii succès bi mu ci am ni jàppoon yaa ngi ko yaakaar nga ko ci wala tey ji nii wala wala bett la waaw xam nga liggéey liggéeykat dañu naan liggéeykat moom dara jomb ko waaw liggéey moom liggéey kat moom dara dara jomb ko quoi yaa ngi comprendre peut bi biñ koy def biñ koy def man xam naa xam naa ne liggéey naa ah xam naa ne liggéey naa en plus sama gars yi ci ginnaaw xam nga gars yi nga xam ne ñoo ma jàppale ci affaire bi waa Gap production ak benn label Mass 36 ñoom laa àndaloon ci liggéey bi ah ñu defaral ma beat bi defaral ma lépp waa Gap production tamit ñoo jàpp ci production clip bi ah te gars képp koo xam ne man du ma def rek pour kii quoi damay def woon sama gars yi kenn ku ci nekk joxe ab yoom joxe sa xalaat ñu doog a am fit pour pour pour présenter ko Sénégalais yi quoi. yaa ngi comprendre moo tax tey ko ci wala wala kii ne du ma bett quoi parce que xam mooy loolu noon te xam nañ li fi nekk ay jeunes lañ ay ndaw lañ xam nañ li fi nekk wane nañ loolu noonu ci son bi ba tey xam nga ñi ngi ñi du ma ne du ma ne waaw mais ñi ngi ñuy woo ci lu nekk euh, ci ci son bi quoi waaw waaw son bi tax na ñu ñuy woo fu nekk wala ñu ñuy yóbbu fu nekk affaire yooyu noonu ah di ci am loo xam ne peut-être ñun ko ci woon ne dinañ ko ci am mais nag sant yàlla sant yàlla li ñëw mooy dàq incha allah affaire yaa ngi fi xam naa d'ici peu de temps rek dinañ dinañ defaat beneen affaire boo xam ne yoonu ndaw lay tudd peut-être xam nga des fois def benn affaire xam nga ñenn ñi waaw waaw waaw ñenn ñi dañ naan waaw xam nga ñenn naan xam nga apprécier et mais des fois da gis dañ naan dañ naan non sa euh, bi quoi ambiance bi moo ko yóbbaale et tout ñu ngi pare benn son boo xamante nii yoonu ndaw lay tudd ah wax ak ñi nga xam ne suñ ay rakk lañ wala ñi nga xam ne suñu ay moroom lañ mu ngi ñëw quoi incha allah wane wane ci suñu tuus bi nga xam ne peut-être xam nga dinañ ko def te du am ambiance dara wane dëgg dëgg dëgg kan mooy Milka quoi. ok ok tubarkalla dégg euh, tey jii nii euh, carrière bi. Euh, tey ji boo ñu doon euh, wax tey ji ni maanaam looy wàcc wala tey ji am na looy wàcc comme yaa ngi koy junj léegi nii mm. carrière bi tey ji nii lan lan moo ci surprise ëllëgee luñ ci luñ mën a xaar ci Milka loolu looy teg suñu loxo. waaw carrément carrément xam nga xam nga affaire yi moom liggéey la rek ñi ngi liggéey comme li ma la wax sànq affaire yi affaire yi liggéey nañ lu bëree bëri li fi nekk ëpp na ëpp na album li fi nekk bëri na trop son bu producteur toon taxawoon tey ne ñoo xam nga son dañuy dañuy ñëw rek di def quoi dañuy ñëw rek di def ay ndaw lañ ci affaire bi lañ nekk xam nga gëm ko ànd ceeg gëm xam nga liggéey nañ lu bëri doole loo xam ne tey tey bu ñu bu ñu producteur woon wala dara xam nga dañuy ñëw rek def quoi waaw di leen wax ni que d'ici peu de temps nañ génne euh, son boobu ma la doon tegal yoonu ndaw bi incha allah loolu moo nekk suñ kanam quoi loolu lañ mën a wax am na yeneen affaire yu ñëw nag mais incha buñ paree rek dinañ ñëwaat fii nii ci ligne wax ko fi quoi incha allah gën a yaatu. xam naa sax la ñuy tëraloon ci wax sax daanaka li ci des bëreetul euh, léegi xam naa euh, comme ni nga ko waxee noonu tey jii sa maanaam ne euh, am na yeneen yoo ñuy xaar ci ci ci ci un peu dara tey jii nii boo amoon tey jii nii looy looy looy looy looy lancé internautes yi nga xam ne ñoo lay bàyyi xel ci ci nekk ci musique scène musicale bi ak sa sa sa sa sa mbokk yi nga xam ne ñii am nañ talent pour bëgg a dugg ci musicale bi lan ak lan nga leen di lan ak lan nga leen di nga leen di nga leen di jox. wadde no wax ni que musique moom boo ko bëggee da ngay nangoo liggéey nangoo job di moytu yu bëri di moytu di moytu yu bëri suufe nangoo déglu ñi nga xam ne peut être ñoo la jiitu wala ñi nga xam ne peut être ñoo la mag affaire yooyu allah loo bëgg am ñaan waajur loo bëgg yàlla mën na la ci jàppale quoi dina wax ni que liggéey la rek quoi hmm. gaa hmm. iya. rek incha allah lan ak lan nga bëgg lataa ñuy tàggatoo nga nga nga bëggoon ñu laaj la ko te te laajuñ la ko bu ko defee ñu waaw ah, peut-être xanaa ñu may leen ñu may leen suñu extérieur bi nga xam ne peut-être war nañ ko def d'ici bientôt ñu am luñ leen ci bàyyil rek bala bala bala ñuy kii ma ne yow mi ndaaw bul dee di daagoo adduna ngi nii fexeel nga jàng cee waaw ma ne soo nekkee si yoon di ndaaw yow bul ne maa fi raw dafa sa xel ni yoonu ndaaw di jaamu ndax nga raw ndaxte am am noonu saxul waaye ñàkk yit saxul kon soppeeku jombul la ndaxte dundu jeexagul bur bi yàlla may la koom teg si may la ay doom bum la tere nekk góor di julli ak woor sama yaay nee na ma doom ma ne fii ci àdduna koo gis def ko ni sa moroom waaw loolu la woon quoi incha allah xam nga li ci des dañ koy denc bu ñëwee mën a mën a mën a kii quoi incha allah tubaar tubaarkàlla macha allah tubaarkàlla wax dëgg yàlla loolu moom neex na lool xam naa eh, mbokk édrodi ñoo ko bàyyi no xel kon na ngeen ko gën a bàyyi xel eh, Milka la l'homme fort de eh, Tivaouane Peulh jeune la bu am talent wax dëgg yàlla te jàmbaar la xam naa ne bu ko defee waxtu bi li ci des bareetul dañ lay bàyyi nga tàggatoo mbokk internet yi sant gërëm ñi nga xam ne ñooy jàpp si liggéey bi say waajur ak ku mën a nekk rek bu ko defee ñu tàggatoo joxante dig daje bu wa comme niñ ko de comme niñ ko défé won au début sank bi ñuy commencé ah di nuyu sama gaay nga xamné peut-être ño nek sama ginnaw ah ñom mam Bamba mam Khadim ñom DJ Dani l'enfant chéri de sama animateur bu mag bi ah ak sama benen Khadim mam Bamba bu Kër Massar ah di nuyu mohammed ah di nuyu ñi nga xamné peut-être ñi ngi may suivre ci réseaux sociaux yi ah euh, WhatsApp Facebook Instagram ak ñi nga xamné peut-être ñi ngi may doole ci YouTube bi ma ngi leen di béggee lu béré béré béré di leen di leen di di di leen wax maa ngi tuub bu baax a baax yenn message yi nga xam ne peut-être dañ koy yéex a tontu wala peut-être mooy loolu noonu ah ñoo ngi ñoo ngi tuub xam nga peut-être yi moo ñu tënk rek waaye incha allah dinañ tontu lépp di leen bëggee yéen waa TV waaw di leen bëggee quoi. ok ok jaajëf mbokk internet bu Lune TV fii la ñëwoon ci diwaanu Euh, Tivaouane Peulh doon fi seq ak waxtaan koo xam ne wax dëgg yàlla ku ku ku jàmbaar la ci lii mu nekk mu ñu koy wax Milka. Mm-hmm. nekk jeune boo xam ne euh, ku am ambition ci li muy def ñoo ngi ko ciy ñaan bu baax a baax lépp lu ci bëgg ak fépp fu mu bëgg àgg yàlla àggale ko ca. Mm-hmm. la ci bu ko defee rek dinañ jox dig daje euh, balaa boobu it ma sant gërëm sama caméraman yi nga xam ne tey jii ñoom ñoo di jàpp ci liggéey bi ba fii yëf yëpp mën a yomb malaaka caméraman ñu koy wax Zoubairi sëñ Babacar Meng nga xam ne moom Saliaat la wala wala Saliyine la sëñ Babacar Meng mu sëriñ Saliou moom it di jàmbaar lool di jàpp ci liggéey bi wax dëgg yàlla maa ngi koy bëggee baax a baax xam naa ne kii bu nekkee malaaka it kee day nekk jinne rek bu ko defee ñu àndoo ko dóor mu mu gën a jekk bu ko defee ñu leen jox beneen yoon eh, leen jox dig dajee ak suñ beneen gan incha allah bi ba beneen yoon jërë ngeen jëf